bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw buñ sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal saxaaba yi nga xamante ne ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba li am tey ni mooy ñu mën a dund islaam ak dund gu leer tey li ñu dajale fii nii mooy amal li ñuy tuddee 24 heures 24 heures muy benn journée ñu am yenn thème yoo xamante ne doon nañ ko traité depuis suba ba léegi kon bii mooy doon suñu ñaareelu thème muy le comportement du jeune musulman face au système LMD LMD bu ñu ko waxee fii nii du système bi nga xamante ne moom la ñu instauré ak université Cheikh Anta Diop mais LMD bi boo déggee L bi mooy lutte M bi mooy musique D bi mooy danse mooy bëre musique ak pecc loolu la LMD bi wund kon ñu taataan rek may oustaz nopp déglu ko mu dugal ñu ci thème bi ndax thème la bu ñëw ci jamonoom ñun ñi nga xamante ñoo fi daje ñu mën cee jàngatee lu bari lu bari ci lan ci ni nga xamante ne moom la ñu considéré lii di LMD duma guddal ndax ku am ganu waxkat li nga koy sargale mooy nga déglu ko déglu ko nag ànd ak dal déglu ko ànd ak teey déglu ko ak xel bañ koo déglu ak xol incha allah dinañu jox oustaz mu dugal ñu ci thème bi ba nga xam ne buñ fi jógee dinañu xam lan mooy le système LMD donc oustaz tafaddal bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turi yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu bala ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy soññ képp ku nekk ci keppaaru baas bi góor ak jigéen ñu yeesalaat sunu yéene ak sunu jubluwaay lan moo tax ñu toog fii est-ce que dañ fay yendu si pour lekk rek walla pour naan wala pour jàllale benn programme bu ñu def ci këyit rek mu jàll dem wala dañoo ñëw pour jaamu sunu borom kenn ku nekk la nga yéene mu jële la ci sa kër tax laa toog fii loolu ngay am innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa kenn ku repp ba toog fii ci ñun fekk sa yéene du lenn lu dul programme bu nu def ci këyit date bi jot ñu war ko jàllale walla cotisé naa naa dem añi walla diw ak diw dañuy ñëw walla diw sama soppe la nangam nangam fekkee loolu dong moo tax nga ñëw loolu nga ci am doo am benn tiyaaba te jàpp naa ne ab jullit fépp fu mu war a teew lépp mu war a def dafa am te dafa war a am tiyaaba jubluwaayam ay yëngatoom yépp wa ajjaltu ilayka rabbi li tardo yàlla dama yàkkamti ñëw ci yow pour lan pour nga kontaan ci man bi Moussa loolu la waxoon bi mu àndeek waa banu Israël ñuy yox yox yi moom mu départ dem bi mu eggee dafa mel nañ ko laaj waaw loo doon daw dafa mel ne yàlla bi mu ko ne waa Moussa lu tax àndum nit ñi mu ne yàlla ndax nga kontaan ci man rek moo tax ma baleen fi ñun tamit est-ce que loolu Moussa waxoon waruñu ko wax wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda wa hadartu ilayka rabbi li tarda yàlla teew naa ci waxtaan wa lu tax ma teew ndax yàlla yow nga kontaan kon loolu maa ngi koy soññu sama bopp di leen ko soññu yéen ñëpp képp ku toog fii mu yeesalaat yéeneem yéeneem ci xolam mu beesalaat ko lan moo tax mu teew fi góor ak jigéen ñaareel bi mooy tomb waxtaan bi nu war a waxtaanee nekkul tomb bu yomb nekkul lu simple mbokk yi léegi léegi doomu ndey bi bi muy présenté thème bi boole na ci waxam ne lutte la pour lan bëree la pour lan jële fi jële fi bëre lutte jële fi M bi mu ne musique D bi mu ne danse ñett yooyu lañ wax de sunu jotaay tey dañu war a waxtaan ñun góor ak jigéen naka la ñuy def ba jële loolu ci Sénégal allahu akbar est-ce xam ngeen li ngeen wax bi ngeen di tëgg thème bi yéen góor yi ak jigéen ñi est-ce que xam ngeen li ngeen wax kenn ci ñun ku toog fii dina ne ah loolu day maanaam mu ngi mel ne dañu ne dañoo war a toxal asamaan si est-ce que gën te yomb wala jële fi suuf si est-ce que loolu gën te yomb jële ko ci Sénégal ñun bu duy tontu dañ naan wallahi loolu yomb la jële ko fi lu yomb la lu yomb la lu tax lan moo tax mu war a nekk lu yomb ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëw na ci société boo xam ne moo gën a ndoy waar suñu bos société boo xam ne ña fa doon nekk ñëpp ay yéeféer lañ moom dong moo doon jullit ñun suñu société ay jullit lañ lan mooy différence bi ñële yéeféer lañ ñii ay jullit yu réer lañ ku réer nag buñ ko gindee mu teguwaat ci yoon wi waaye wax ji fu mu nekk mooy jullit bu réer boobu kan moo koy gindi foofu la wax bi nekk est-ce que yéen ñii la est-ce que yéen ñii yéen nar a gindi ñooñu foofu la wax bi nekk laqad istataa alsahaba an tariqi daawa li diinillahi an yansuru mabadi addin alxanifa fi kulli albaqaai wa fi kulli alard yujadu fiha xalqun lillahi taala xatta qaala ahadu duaat alqaada wa huwa waaqifun ala swaatii albahri almuxiit وأقسم بالله وقال والله لو أعلم أن خلف هذا البهر قوما يؤمنون بالله قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم لخدت لهم بهذا الفرس بهذا الفرس بقي لنبقى مويه ku nekk ci ñun fii toog mu def attention bu baax ci li ñuy waxtaane li ma yow li ma bëgg a wax waxtaanu diine su ma koy def bu ma sañoon fekkoon ne man la sama ndigal dam naa ne ñëpp fay seen portable bu kenn bougé bu kenn noyyi lu tax parce que chaque jour lu ñu yitteel lu ñu ñor la ñuy wax daa am lu ñu bëgg loolu nu bëgg mbokk yi lu rëy moo nu koy may dañuy bàyyi lu bëri dañuy bàyyi mën nga ma fayal sama portable dañu ne saxaaba yi ñoom mën nañ ci yoonu daawa wooteel yàlla subhanahu wa taala góor yi ak jigéen ña delloo si génération bañ doon dundal ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ñu ñëw fekk ay bokkaalekat ñu yóbbu leen ci yàlla ñu ñëw fekk ay xërëmkat ñu bàyyi loo leen xërëm yóbbu leen ci yàlla ñu ñëw fekk ay fecckat ay naankati sàngara ay njaalookat ay jigéen yuy jaay seen bopp ñu génne leen ci loolu lépp yóbbu leen ci yàlla sahaaba yi def nañ ko ci jamono bu ndaw waxtu bu ndaw te loolu fii kulli baqaa'il ard ci mboolem continent yi ci kaw suuf fépp foo xam ne seen tànk jot na fa tegu sahaaba yi changé nañu foofu fépp fu leen wóor ne nit ku tudd nit mu ngi fay yeewoo ñoom sahaaba yi jéem nañu jël seeni jumtukaay fexe ba yegg foofu pour changer foofu am na ci kenn ci ñoom ku dawal war waayam fasam ba taxaw ci géej gi muy océan atlantique bi ñu jàkkaar lool mu waat waat bu rëy mu ne wallahi maa ngi giñ ci màggaayu yàlla law aalamu anna hada anna xalfa hada albahr su ma wóoroon ne ginnaaw géej gi qawman laa yuminuuna billah ay nit yu gëmul yàlla ñu ngi fi wala yusaddiquuna bi muhammad du ñu dëggal muhammad ñu ngi yeewoo fi ci ginnaaw géej gi mu ne la xuttu lahum bi hada alfaras dinaa xus géej gi jëm ci ñoom géej gi dinaa ko xus ak sama fas bi waaye lu ndaw rek ci ku bëgg changement mooy lan moo la war ku bëgg changement am jàng defaru ah laajte ba léegi amaguma baat bi ma bëgg ku bëgg changer yéen yéen a bëgg a soppi jigéen ñi Ndakaaru ngeen ne yéen yéen ba léegi baat bi ma bëgg joxagu leen moom sacrifice yooyu yëpp balaa nga koy def dafa am benn baat boo xam ne moom nga war a def ba pare benn rek boo boo defee boobu rek yeneen yëpp seen mooy jóg taxaw yaa ayyuhal muzammilu qum taxawal yaa ayyuhal mudassir qum dugal taxaw da ngay taxaw ba pare doo ko engagé wu munoo toog ne damay engagé wu munoo tëdd ne da ngay engagé wu munoo nelaw ne da ngay engagé wu wala da ngay def sacrifice da ngay taxaw temm takku qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahir wa rujuza fahjur wala tamnun tastaksir wa li rabbika xam nga lu tax li yëpp nga war a jóg inna sanulqi alayka qawlan saqila foog nga taxaw saxaaba yi ba ñu gëmee ne dañoo war a taxaw ànd ak yonent bi ñu taxaw temm changé nañ wala changé wuñ seen société changé nañ al imaamu xasanul banna moom ak juróom benn nit ñoo àndoon pour changer Égypte loolu changé na tey six personnes ak moom bi ñuy fondé mouvement islamique bu tudd ixwaanul muslimin frères musulmans yi sis la mbokk yi kon yëf yi taxaw la laaj xum yamale guddi ak bëccëg yamale tàngaay ak sedd yamale neex ak naqari yonent bi fekk ay Fatima fekk na yonent bi mu sonn pënd poussière tilim mu ne ko papa doo noppalu mu ne ko laa raaxata li abik heure bi du heure noppalu ñu fekk yonent bi ci sukuraat muy waaj a génn àdduna Fatima naan waa karba aba papa sonn nga mu ne ko déet laa karba bi abik baadal yow ma coono jeex na maanaam kon dund àdduna coono rek la soo fi bàyyee ko war dem alaaxira noppalu ñëw na bi muy dund kon yëgoon na ne coono dafa noflaay jeex na mu takk ànd ak ndawi màkk jàngeen keroog ba abu taalib ñëwee ci yonent bi ne ko dañ la boo bëggee caabi kaaba gi ñu jox la boo bëggee nekk borom alal ñu dajale alal jox la soo bëggee nekk buur ñu fal la soo bëggee nekk am personnalité bu màgg bu ñëpp xam ñu jox la caabi kaaba gi te nga bàyyi li ngay wax lan la yonent bi def dafa giñ mu ne buñ tegoon jant bi sama loxo ndey joor ñu jël weer wi teg sama loxo càmmoñ ñu jël weer wi teg sama loxo càmmoñ pour ma bàyyi li may wax mu ne duma ko def lu dul yàlla alaj ma wala yàlla def lu ko neex yonent bi ci la daw yéeg xeeru safa commencé di dem marché Ocass ndax taxawaay boobu moom dong la woon dafa utoon benn kër bu tudd daarul arqam benn centre markaz bu tudd daarul arqam ku fay ñëw di fa dugg di war a jàpp ci changement boobu ñu war a changer société bi soo fa waree dugg góor wala jigéen sa tànk ndeyjoor mooy njëkk a dugg boo duggee dañuy kale gauche bi balaa muy ñëw nga wat ci yàlla ne gauche bi mooy fekki droite bi mais droite bi dootul fekki gauche bi day dégg li mu wax centre bi ku fi dugg góor wala jigéen pied droite mooy njëkk a dugg bu pied droite bi duggee dañuy bloqué gauche bi balaa gauche bi di ñëw da ngay seede ci yàlla ne gauche bi mooy fekki droite bi ci biir mais droite bi dootul fekki gauche bi ak situation bi lu mu lu mu laaj nag ak loolu la ci mën a fekk gauche bi rek mooy fekk droite bi mais droite bi moom pare na dugg na ba pare est-ce que ñun pare nañ pour loolu taxawaay la laaj loolu moo tax nga gis ñooñu képp ku fa duggoon soo paree lan la engagé wu nga parce que taxaw nga ba pare ba ñëw dugg avant engagement taxawaay lan ngay laaj yonent bi mooy lii ma ñëw lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war Aboubacar Saddiq keroog bu mu duggee mu dugal pied droit am boobu ci changement boobu ñu bëgg changer mag génne leen ci bokkaale génne leen ci xërëm génne leen ci réer yéen xëy na tey làmb ngeen di wax musique ak danse ay lenn lañ tànn ñoom dañoo fekkoon lu gën a bon loolu Aboubacar bi mu ne yonent bi waaw changement bi ma bëgg lan moo ci sama liggéey lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war juróom-ñaari fan bés bu nekk Aboubacar dina ŋàbb gàddu benn ponkal ci yéeféeri indil ko yonent bi mu tuub nekk jullit sept jours juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan premier jour Ousmane Ibn Affan la indi Aboubacar premier jour Ousmane Ibn Affan la indi deuxième jour mu indi Arxam Ibn Abil Arxam deuxième jour mu indi Arxam Ibn Abil Arxam troisième jour mu indi Ousmane Ibn Mazoum quatrième jour mu indi Bilal Ibn Rabah cinquième jour mu indi Arxam Ibn Abil Arxam jàngeen asara mubashirina bil janna fukk la juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen indi ñun ñu toog fii ku nekk ci ñun bi nga jógee taxaw engagé wu ba léegi koo indi ku nekk waxal ci sa xol kan nga indi ñaata nit wala ñu tàmbalee ndeyjoor laaj mas ngaa indi nit ci sunni ci sunna léegi baas bi jeex ku nekk ni nii di yëngal bopp naan nii mooy déedéet déedéet nga ñëw ci jigéen ñi déedéet kon ñun bëggaguñu changement pareeguñu pour changer bu fekkee fi mu nekk nii ñenn ci ñun ñu ngi def fukki at ci mbokk yi fukki at mosoo indi kenn fukki at mosoo indi kenn changement bi du am ñee bis bu nekk nga gis ku gàddu benn ponkal indil ci yonent bi Tufayl ibnu Amr bi mu duggee dafa ne yonent bis bu mu duggee rek dafa yuuxu ne yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yonent waa daws dëkk bi ma bàyyi ko ay yéefér lañ ay njaalookat lañ yonent yónni ma man mii tey ma dem génne leen ci loolu yonent na ko demal abu zarin al xifaari bi mu duggee yonent la kaa yónni mu dem bi muy ñëwaat li mu àndal kenn mënu ko gis ndax poussière bu bari li mu àndal ci ay nit yonent bi mu leen séerée muy ñëw dafa ne xifaarun xafara lahumullah waa xifaar a ngi nee di ñëw ñoom ñëpp yàlla jéggal na leen kenn moom def def liggéey boobu ñun ñun pare buñ mbokk yi dañu ne dañu bëgg fexe ba loolu ñu naan bëri làmb ci wàññeeku bokk wala mu jógee fi musique danse bu fekkente ne mbir mi nii la demee taxawaay la laaj kenn dina ne waaw ñii ñoo doon xale yu ndaw yi xale amul ci lislaam alxuraan amul yaa ayyuha siraar am na ci 114 saar la xam ngeen lu ci nekk yaa ayyuha allazina amanu benn yaa ayyuha allazina kafaru moo ci am kon su fekkee imaan boobu mu ngi fi lan la ñuy laaj kayfa nuiidu mabaadi al islaami ila dunia nas naka la ñuy def ba delloowaat islaam ci dundu nit ñi nit ñi bu ñu delloo bu ñu leen delloo ci dundu lislaam kon yii ñuy jooy yépp day jeex buñ fexee ba nit ñi delloowaat ci dundu diine waaye naka la ñuy delloo ci dundu diine mooy aqimu dawlatal islaami fi qulubikum borom xam-xam bi biñ ko laajee naka la ñuy delloo société bi ci lislaam dafa ne bala ñuy delloo société bi nañ delloo suñu xol yi ba pare su xol yi delloowee ci lislaam rek nit ñi neex a delloo ci lislaam ku nekk ci ñun taxawalal benn état islamique ci sa biir xol laaj la boo xam ne war nañ ko laaj suñu bopp kayfa najaalul islaam dusturan naka la ñuy def ba islaam nekk constitution da ngay gis benn waay bu am benn parti wala mu nekk ci benn parti ñu dàq ko mu génn fondé parti bu bees yamale guddeeg bëccëg di sonn di sonn di sonn ba dem pouvoir te benn nit kese la ay cinq personnes ñoo ko doon jàppale te loolu jàngeen ko am na ñoo xam ne dañuy former seen parti ànd ci ñu leen di tëj di leen dóor di leen di leen di leen ba bis ñëw ñu dem au pouvoir waaw yéen nag lu tax mënu leen loolu wala da ngeen ragal xiif da ngeen ragal kaso da ngeen ragal ñàkk da ngeen ragal du ngeen am jabar da ngeen ragal du ngeen fondé famille da ngeen ragal du ngeen am jëkkër da ngeen ragal kenn du leen takk loolu mooy parewul yeneen bi bi mu pare pour changer dafa pare pour lépp saxaaba yi ñëw nañ ci moom ne ko ay sonn na ñaanal ñu yàlla mu ne leen gisagu leen dara lii ngeen nekk dañ ci doon jàpp ni tëral ko ci taabal jël si siyee ko ba mu nekk ñaari ŋàllit te du deltu ginnaaw ci li mu gëm ñu dana nekk foofu eggul foofu ñun mbir mi dafa am lu mu laaj du toog rek yendu fenn teg suñuy baas indi ay sees ni day bëgg a soppi beneen musique tam dem ñu loolu de wallahi du loolu wallahi du loolu lii lu mu laaj lii dafa am lu mu laaj te lim laaj bu ñu ko ko joxul dañuy perte dañuy perte coono dañuy perte rek ay ay ay minutes ay waxtu yoo xam ne lii fa am lu mu laaj wallahi bu fekkoon ne dëgg la ñun ñi nekk fi rek mun nañ ko ñun ñi ñun ñi nekk fii fekkoon ne dëgg la laa wax pas-pas boobu dugg na sunu xol góor ak jigéen wallahi wallahi mën nañ ko mën nañ ko waaye danoo pareegul pareegul loolu moo tax mbokk yi kayfa najaalul islam dusturan naka la ñuy def ba islam nekk constitution constitution bi nekk Sénégal ay nit ñoo jóge France ñëw dóor suñuy maam ñii ñu tëj leen ñii ñu exilé leen ñii ñu rey leen ñii ñu dàq leen taal daara yi jàng yéen a ngi koy woy sa xale yaa ngi koy woy ci seen woy boobu nu mu tuddati bokkul tubaab bi gis nga yéen a ngi koy woy tubaab bi moo ñëw def loolu fu dàq fi ñëpp def lu ko neex ñëw indi fi constitution daan koy daan ko fi teg waaw léegi nag ndeysaan dafa am benn bis ci Palestine am ngeen Salahuddin moo dàqoon yahudi nangu caabi ji taxawalaat jàkka ji bu Salahuddin génnee àdduna jullit ñi delluwaat ci caaxaan di foog ba yahudi ñëwaat nangu ja nanguwaat place bi nanguwaat jàkka ji rey jullit yu bari benn généralu tubaab dafa ñëw ba ci bàmmeelu Salahuddin mu dëgg ci ak dàll bi daan ne ko ñi nga fi dàqoon seeni maam seeni sët ñëw na laa ilaaha illallaah ñi nga fi dàqoon seen i maam ñu lay yëgal seen i sët màgg nañ ñoo dellu si tey dàq say sët samp fi ñoom leen bëgg kon mbir mi du lu ndaw changement boroom xam-xam yi dañuy wax ne wusin wusin day metti kan moo gën sa gis wusin bu sedd kuy am doom mu sedd chaque jour buñ nee nit day am doom jigéen day am doom lu ñuy njëkk a xalaat mooy am doom day ànd ak deret te deret saa yi ko gisee du lu sedd kon changement loolu lay àndal lépp lay àndal looloo ci gën a tuuti yeneen bi mu bëggee changé jigéen ji ci njëkk a faatu nu mu tudd luñ ko def dañ ko doon upp dañ ko doon may ndox mu sedd ba mu dee dañ ko doon tëral ay ventilateur ñu ko def dañ ko pendre rey ko doomam Ammaar jëkkëram Yaasir yonent bi mu leen rombee ñu leen di buggal lan la wax sabaran ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna kon kayfa naj'alul islaama dusturan lil hayaat wa qanuunan lil hukmi naka la ñuy def ba islam nekk constitution waaye nekk loi yoo xamante ne moom la ñuy àtte ci réew mi su ngeen paree pour changer loolu day pare ngeen pour jële musique ci Sénégal ak danse danse bu bon danse am na bu dagan ak bëre bu bon ndax bëre am na bu dagan ak ak bëre bu bon wax naa ko ak pecc bu bon maanaam li cosaanam am na ci lu baax mais dañoo dem ba dugal ci lu bon ba tax mu bon mais am na lu baax cosaanam bu leen fàtte ne am na ñaari nit ñu bëggoon dem jihaad ñaari xale ñu ñëw ku nekk ne maay dem yonent bi daal di tànn kenn ki ne ko yow yaay dem est-ce que moo gën a njool mu ne yonent keneen ki ne yoon pour ça kii nga tànn maa ko mën nga ni ko na dem man nga ne ma naa toog kii maa ko mën yonent bi lu tax nga wax loolu mu ne ko doon bëri yonent leen bismillah waaju gàtt ji yéen ko njool ki dóor ci suuf mais gis nga lu ma la waxoon kon su xaraamoon danaan leen day lii waaye bu bon bi bii bii xew fii ci jamono bi bii tax ñu alak Sénégal tey ba kenn bëggatul jàng kenn bëggatul liggéey ku xëy rek sol sa kilo takk say godaas utali géej bu ngoon jotee nga yendoo naan fonde guddee nga yëkkati poids looy ut doole loo bëgg milliard million kese musiba la te dëkk ay mbër duñ ko tabax fan ngeen mës a gis ay mbër yu tabax yu yu yu yu ne yu yu formé gouvernement dëkk ay fecckat duñ ko tabax dëkk ay musicien duñ ko tabax waaye nag ñun fa lañ jëm ñun Sénégal ñu ngi jëm ci am ay ministre musicien ay ministre mbër ay ministre fecckat fa lañ jëm de waxoon naa benn bis amira jamaatu ibadu rahman ma ne ko def leen attention ci xale yu jigéen yi di muuru bis a ngi ñëw ngeen gis ci ku mbër takk wala ku fecckat takk wala ku musicien takk ñu xëy suba daal di wax benn mbër mu ngal takk na jigéen juy muuru wala ba mu demee ba war a bëre xërëm yi ne ko sa soxna si dalay yàqal mu fase ko wala wala mu ngoog un jour viendra Balla Gaye takk ci ñii kenn tey su ñëwoon kenn ci ñii di ko bëgg a takk dana alhamdulilahi rabbil alamin a texe naa bismillah ahlan wa sahlan alaysa kazalik
voilà.
bu bu doon sax sa sœur la da nga naan non dara nekk ci quoi ñun ñun yéen ñi toog fii seen sœur kenn wala doom daan dara nekk ci bakkaar bi moom kese la quoi sama rakk bi bokk ci loolu mooy ñàkk xam suñu jubluwaay loolu mooy ñàkk xam jubluwaay loolu mooy ñàkk xam lu ñu bëgg ab julit bu jëm ci yàlla alalu àdduna du ko détourné bànneexu àdduna yi du la détourné du la tere nga jaar sa yoon ba egg ci yàlla puisque munoo dem ci yàlla ànd ak yii moo tax gis nga alquran yàlla bi mu naree formé yonent bi ak saxaaba yi ñaata yoon ngeen dégg alquran wàcc yàlla di leen ŋàññal dund àdduna ilamu annama alxayata dunia laibun wa lahun wa zina ndax boobu aaya rek moom moo wax di ŋàññi àdduna ñaata yoon ngeen jàng alxuraan ne mataaul xayaatu dunia qalil ñaata yoon ngeen jàng yàlla mu ne wala yaxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur parce que loolu poñet yooyu ñun ñuy gis tey mooy xaalis boobu ñu ciy fay ay millions fecckat boobu di génn télé di def lu ko neex ñu koy may ay visa mu ñëw di tabax ci benn koñ mu jënd terrain tabax ko léegi mu taxaw yóbbu yaayam màkk patatatata nga gis maire yi commencé mu ñoom tamit di ñaan sama yaay man kay sama doom ji maa ngi koy gërëm nga gis waa ji même mbër mi bu génnee télé maa ngi gërëm sama yaay sama yaay laa bëgg a teral sama baay rek baay ji léegi dootul waxati lii daa araam bëgguma moom kay sama doom ji maa ngi koy ñaanal kontaan naa rek parce que lu tax poñetu àdduna yu ndaw yooyu moo leen tere egg ci yàlla ñun nag bu fekkente ne dañu nekk ay jullit gëm lislaam yonent bi nekk suñu royukaay poñetu àdduna yooyu duñ koy dum mooy pour ñu samp liggéeyu yàlla bi bu leen fàtte ne saxaaba yi pour dëddu àdduna kenn ci ñoom buñ ko yónni woon ci buur yenn saa yi ñu war laa yónni ci buur boo xam ne day lay jéem a terroriser balaa ngay ñëw dañuy préparer lal lal ay moquette yu xonk cur teg garde yi buur bi ñu tegal ko pliaanu or verre bi day nekk verre kaas bi bu muy naanee day nekk or kopp bi nekk kopp bu lix ñu def ndox mi wala plat yi ñuy lekkee defar place bi pour bu waa ji bu yegsee na xelam nekk ci àdduna xam ngeen amru keroog ba ko rustum invité muy ñëw mbaam la waroon bi mu ñëwee mbaam mi la jaaral ci kaw tapp bi gaa yi ne ko lii nag mu ne yéen a woo bu ngeen bëggul ma ñibbi xoolal gaa yi ñoom tapp bi kan moo ci jaar buur bi moom mu ñëw jaaral ci mbaam mi ñu ñëw fekk benn fauteuil bu rafet buñ ko tegal pour mu toog ci mu ferenkulaayu ci moquette bi pour wan leen ne yii yéen a ko gëm man am na feneen foo xamante ne laa yaakaare li mooy aljanna ah ñu ne ko waa yéen lan moo tax ngeen bàyyeekoo seen dëkk tasaaroo ci àdduna bi nii lan moo tax rek ngeen bàyyi màkk wër àdduna bi di ko islamiser mu ne ko ixraajul ibaad min ibadati al ibaad ila ibadati rabbil ibaad dañoo jóge sunu dëkk pour génne jaamu yàlla yi ci jaamu gi ñuy jaamu ay yàlla ñu jaamoo leen benn yàlla kese mu ne ko ak lan mu ne ko li nuxrijakum min diiqi dunia ila siati al axira pour ñu génne leen ci àdduna bu xat bi parce que yéen àdduna dafa xat ci yéen lan moo tax àdduna xat parce que noos rek ngeen fi gis mooy dund lekk naan fecc way lii rek ut alalu àdduna moo tax àdduna dafa xat pour ñëw bu leen ci àllaaxira gu yaatu gale mais ak lan mu ne ko min jahimil maasiya ila jannati taa pour ñu génne leen ci mooy yàlla bu metti gi ngeen nekkee yóbbu leen ci àjjana ju yaatu jee nga xam ne topp yàlla moo fa yóbbu nit du wax ji yàggee ba war a jeex rustum ne ko waaw su ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu daal di dugal loxo ndeyjoor bi ci mara bi fi mu dugal jaasi ji daal di koy xëcc xam nga weñ bi ñu ko dugalee ci weñ soo koy xëcc muy génn nu muy def da ngay dégg son bi muy yuuxu jaasi ji ne karaas mu yëkkati ko ci kaw ne kii mooy nekk suñu diggante ak yéen xoolal benn nit bu toog ci milliers personnes yoo xam ne ñëpp ay noonam lan nga génne jaasi ne kii mooy nekk suma diggante ak yéen rustum daal di sëgg xool garde bi garde yi xoolante mu daal di koy dugalaat ne ko waxal mu gaaw damay dem gars yi man rek la ñuy xaar xoolal ñooñu mbokk yi waa joo xam ne muy ñëw mbaam la war parce que àdduna la yonent bi raxas ci seen xel génn ko ci seen bopp ndax chaque jour awqaatul xams julli juróom ñu taxaw ci kanam yàlla ne ko allahu akbar yow yaay ko màgg ko yaa gën a màgg ñëpp Sayyid Qutb buñ koy rey di ko pendre danga ko ne dañ lay ñaan rek nga deltu ginnaaw ci li nga doon wax nga ni yaa ko doon wax mais dangaa juumoon kese politique la ñu daal lay baal suñ la baalee bu amee ay fan dalay def ministre mu ne leen loolu man mënuma ko ñu ne ko lu tax mu ne sama baaraam bi may taaya bis bu nekk may taaya di jublu penku di ko joxoñ yàlla di wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah naka laay waxee loolu ba pare ma téye sama big di signé ci état laïque état boo xam ne gëmunu yàlla naka laay julee sama big di ko signé ci loolu te bis bu nekk sama baaraam bi di wax loolu mu ne leen beneen bi bu fekkente ne damaa gëm ne maa nekk ci dëgg waruma leen wax baal leen ma lan laay ragal ci dee bu ngeen ma ne da ngeen may rey lan laay ragal ci dee kon lislaam taxawaay la laaj ak dund la laaj du ay waxu kese lislaam dund la bu leen gis li nekk ci dëkk bi ni ngeen yaakaar ne lii mooy lislaam lii du dara du tus donte ne jàkka yaa ngi fi fees yéen a ngi dégg la benn borom xam-xam bu mag dafa jóge benn dëkk mu ñëw di wàcc fajar fajar avion bi di ko wàcc mu dégg jàkka yi asalaatu xayrum mi xam ngeen fajar seen Dakar Ndakaaru xam ngeen fajar Ndakaaru lu ngeen di dégg jàkka yi yëpp a yuuxu parce que yëpp ak haut-parleur mu ne alhamdulilah ah Sénégal dëkku lislaam ba mu toogee ba ndékk ba mu naaj ay une heure gars yi ne ko léegi fanfur la war a yóbbu mu génn rek ñu dem téeméeri mètre mu ne mais avion bi xanaa dafa am beneen dëkk bu mu tiimoon bu dul bii doo ko wàcc fee ñu ne ko déedéet ñoo doon dégg seen papa yi di noddu salaatu ñoo nekk nii ci suba si mu daal di jëlaat vol ñibbi kon lii nii bu mu leen jay bu mu leen bu mu leen nax dundu diine du ay waxu kese jëf la laaj sonn yamale guddi ak bëccëg pour changer parce que yow yow yaa xam nit ñi xamuñ kon comme yow yaa xam foog nga dem fekkee nit ñi mbokk yi at tariq ila zalika su fekkee dañu bëgg a changer jële fi li ñu wax bëri musique danse fecc su fekkee ne loolu la at tariq ila dalik an nujida lil islami rijalan mooy il faut ñu taxawal il faut ñu utal l'islam ay góor ak ay jigéen ah su ma nee foog ñu ut ay góor dina am ku ma posé question wala mu xool ma waaw oustaz moo ñu yem naka lay toogee jàkkaarloog ay góor naan il faut ñu ut góor non góor ak takk tubéy du benn góor ak takk tubéy dafa am benn xale ci tilaawa juzu xaamis suma juumulee wala juzu saadis xale bi papaam da ko yóbbu école mu jàng ba am examen mu ñëw ne papaam danga may jëndal moto parce que léegi góor laa gis nga examen baa ngi nii am na il faut que léegi nga utal ma moto parce que léegi góor laa papa ji ne ko doom ak ngóora nekkul ci war moto mu ne ko am na ñu bëri ñuy sol pantalon takk ceinture duñu ay góor loolu foofu laay waxee su fekkoon ne góor mooy ku am awra góor rek takk tubéy kon yàlla du wax ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi kon góor ak takk tubéy sa nga dëgg ñun nag laa wax bu fekkee dañu bëgg laa wax samp li ñu wax nii ay góor la ñuy ut ay góor yu yenu liggéey bi parce que liggéey bi ay góor a ko yenu liggéey bi kañ dem fee non démb demoon naa nan dem réunion non mbokk yaa ngi fi non heure boobu naaj bi day tàng non heure boobu man mënu ma ko jóg de mënu ma ko yeewu de ah ndeysaan yow ñun pare bu ñu pour loolu kon gis ngeen yonent bi mu bëggee changer lii ay góor la taxawal ay góor jigéen ñi sax dañoo nekk ay góor waxuma la ak góor ñu benn xissa bu ndaw ci benn kër pour ngeen xam ne ñu ay góor la yonent bi taxawaloon pour changement am muy kër Abu Bakrin Saddiq wax naa leen léegi Abu Bakar ba muy dugg ci diine bés bu nekk day indi benn ponkal jox yonent bi waaye xool leen guddi gi yonent bi di gàddaay bëccëg dafa ñëw kër Abu Bakar ci heure boo xamante ne daaw fa ñëw Abu Bakar bi mu séenee yonent bi di ñëw këram te du heure bi la fi doon ñëw mu xam ne am na lu xew ci digg kër gi la ko xaar yonent bi ñëw ne ko génneel ku bokkul ci kër gi génneel ku bokkul ci kër gi famille bi ku fi bokkul na génn yonent bi Aboubacar ne ko ñëpp samay doom lañ samay njaboot lañ kon formation bi mat na yonent bi daal di toog ci digg kër gi waxu ko nañ dugg ci biir néeg bi parce que Aboubacar jox na ko garanti ne ko kër gi ñëpp sama njaboot lañ mooy kon information yi du seen lu xew mu ne ko yàlla moo ma jox ndigal bu ma fanaan màkka tey damay gàddaay foo jëm mu ne Médine abuba Aïcha mooy nettali xale bu ndaw la mu ne keroog laa gis sama papa di jooy mel ne ko am na xar ndax kontaan lu tax bi mu ne asuuba ya rasulallah damay ànd ak yow yonent bi nangul ko Aboubacar dafa jooy mel ne ku nekk ci naqar ndax kontaan waaye xoolal Aboubacar yéen ñi jàng taarix siira fan ngeen jàngee ci téere siira yi ñu ne après yonent bi dana Aboubacar dama nga wuti ay gëléem am na ci téere yi na nga na nga togg ay lekk am na ci na nga préparé ndox mu ñu naan am na ci yonent bi dem na préparé ji Aboubacar xam ne comme nee na yonent bi damay ànd ak yow te yonent bi am na lu muy soxla mu dem ut ñaari gëléem benn moom benn yonent benn mu ut ku leen di woon yoon bi parce que xamuñ xoolal mu préparé waa këram buñ fi déparé suñu doxee gaaru xiraa la ñuy dugg suñ fa duggee dana fa def ñetti fan kon dañuy soxla lekk ak naan asma préparé lekk ak naan di leen indil abdallah di soññ xar yi bu asma demee ay xoolal màkk septième siècle ñu war a dox lu toll ni fii ak kenn xamul diggante màkk ak Gaaru Hira tey ku fa dem booy dem visite kaar lañ lay dugal boo xamante ne dañ koy climatiser day daw ba nga tas xoolal ñoom guddi gi yonent bi dox ko ak Aboubacar dugg ca xeer ba doomam bu jigéen Asma doomam bu góor Abdallah ibnu Aboubacar kii day yore lekk kii ñëw yor xar yi su ki yor lekk demee ba dugg tànk yi mu jaaroon parce que dañuy bañ xëy suba ñu xool tànk yi topp ko xale bi ba day gaaw fajar mu jaaral ci xar yi xar yi effacé tànk yi bu demee xar yi nekk ci wetu xunt bi Aboubacar génn ratt sow ba mu bëri daal di dugalaat asma ñibbi ñu daal di buub xar yi ñibbiwaat formation boobu góor ñooñu kan moo leen jàngal loolu kon mbirum mbirum changement mbirum taxawaay mbirum dundal diini du mbiru waxu kese dafa laaj taxaw moo tax yàlla ne yonent bi jógal taxaw xum la ko wax ay ginnaaw iqra bi ko yàlla ne jàngal yónni ko def ko yonent ñaareelu aaya bi wàcc yàlla da ko ne jógal nelaw jeex na jógal sàngu jeex na yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir xatta nelaw yàlla ne ko nelaw jeex na qumil layla illa qalila ñun ñu bëgg ne dañuy changé sama waay yenn saa yi sax nga dem layla imaan yi am kuy nelaw ñu koy yee mu tëx a yeewu te layla imaan yi la dem xaaral tuuti waay xaaral tuuti waay ba jugal fajar da yigir de xaaral leen tuuti sama yaram bi day metti ci góor ak jigéen nag yenn saa yi sax am na ñoo xam ne duñ dem duñ wuyu ci bi ñu commencé layla imaan yi ba léegi am ñoo xam duñ wuyu ci jamais jamais jamais ñu bàyyi seen kër yi wuyu ji layla imaan yi ba pare ñu ne dañu bëgg changement danañ nax suñ bopp ma ne suñ bëggee changer dañuy tabax ay góor tabax góor du sol tubéy du jëndal ko benn simis àllaa ji nangam nangam déedéet du am sikkim du loolu rijalan fil maydaani alxaya ay góor ñoo xam ne ci wàllu dund gi lépp dañuy taxaw loolu la yonent bi defoon taxawal ay góor ku mu ci yónni mu doy mu ñeme leen yónni ci ay buur di leen bindal ay lettre ñu war ay fas di traverser ay continent di dugg ci ay montagne ci ay xur di xuus ay géej di yóbbul buur yi ay lettre ragalul kenn ku dul yàlla lu waay ñàng ñàng ñàng su yonent bi ne ana diw mu ne maa ngi mu ne ko dama la yónni ci kenn nga d'accord kenn yonent mos ko wane ko dama lay yónni mu gàntal parce que daf leen formé rijalan fi huqulil intage ay góor ñoo xamante ni ba ñu gëmee yonent bi sax commerce comme mujj nañ sax monopole commerce bi mënuñu nañ koo téye seen loxo lépp ci wàllu dund gi xoolal Omar Ousmane Ibn Affan nee nañ cëpp Médine amuñu ndox mu ñu naan benn teen moo fa nekk benn teen moo fa nekk teen bi benn yahud moo ko moom benn teen moo nekk Médine waa ji day jaay ndox mi tey day jaay ku bëgg da ngay jënd jullit yi sonn Ousmane Ibn Affan ñëw ne ko dama bëgg nga jaay ma genn wàllu teen bi mu ne loolu nu muy nekkee mu ne soo ma soo ma jaayee genn wàllu teen bi tey ñun ñooy root yow doo root suba nga root man ma bañ a root mu ne waaw loolu da yomb rek ko dañ koy xaaj ñaari fan tey yow yaay root yow Ousmane man sama waa kër dun root mu ne waaw sama waa kër bu ñuy root suba yow sa waa kër dun root mu ne waaw Ousmane fay ko génn réew ci yonente bi ne ko benn jullit bu mu jëndati ndox man Ousmane bu ma ayee na ñépp ñëw root ngir ma din ku am looy root rek root ko ba mu fees nga denc bu waa ji ayee war a jaay ndox du gis ku mu jaay waa ji day xëy ubbi teen bi soo ma ngoon du gis ku mu jaay ndox parce que ñépp root nañ ci ayu Ousmane waa ji amatul xaalis Ousmane toog ba xam ne waa ji sonn na Ousmane ñëw ne ko ah dama bëgg ñëw nga jaay ma sa genn wàll benn li nga moomoon yow sa genn wàll sa bis boobu nga moomoon mu ne waaw mu ne nga jaay ma waa ji ne Ousmane nax nga ma ba ma la jaayee genn wàllu teen bi nga ma nax parce que beneen genn wàll gi léegi kenn soxlaatu ñaata bële passé da ko ne woon lu cher Ousmane Faye bii mu bëgg wax lu cher la Ousmane ne ko bàyyi ko bàyyi ko man xam nga dama lay dimbali rek ñaata Ousmane wax ko lu yomb mu daal di nangu Ousmane Faye ko daal di ñëw ci yonent bi ne ko Medina bu kenn jëndati ndox teen baa ngi noonu bu ko kenn ubbati ñu mel noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaxoon Abdourahman ibnu Awf keroog ba mu nee cëpp Medine yonent bi mbokkale ko ak benn waay lan la wax waa ji ne ko nan dem sama kër am naa am naa jabar yu bari bu ñu demee nga xool koo bëgg ma fase nga takk am naa tool yu bari bu ñu demee nga xool tool boo bëgg ma bàyyi nan dem kër yi kër goo bëgg mu ne ko baarakallahu laka fi ahlika wa maalika dulluni ala suuq yal na yàlla def ci sa yow barke sa alal ak sa njaboot won ma marché bi mu dem di jënd di jaay ba nekk plus riche Madinatul Munawwar ay góor la yonent bi taxawaloon taxawul ay jaaxankat ay fakat ay ñoo xamante ne seen liggéey lislaam yëpp ci ay këyit la nekk yonent bi taxawul woon loolu yonent bi taxawul woon ñooñu laa wax déedéet ay góor waxoon ñuy takk tubéy rijaal yàlla moo ko wax rijaalun sadaqu ma ahadullah alay min al muminina rijaalun la yàlla wax ci biir ñi gëm yàlla si yoon si si aaya bi yemoon foofu rek kon ñu xam ne ñëpp góor lañ waaye mu taggaal leen ne rijaalun ça veut dire que kay kon du takk tubéy kese ñun nag ñu bëggee changer li ñuy wax nii la budda rijaal rijaalun aydan fi saaxaati alxard ay góor yoo xam dañ leen di taxawal ci front bi comme tolloguñ ci front mooy ci terrain bi ba dañ leen di gis ci terrain bi mais yéen kenn gisu leen ay na antum saa yoo déggee rajo buy yuuxu guddi du Ibadu Rahman guddi moom bokkul seen programme ñëpp ngay dégg guddi ñuy rëjëx rëjëx di yuuxu ñee ngay fecc ñee ngay yuuxu ñee ngay ñee ngay bam des yéen te yéen yéen yéen a bëgg a changer dëkk bi te kenn du leen gis programme juróom-ñaari weer ba juróom-ñaari weer ngeen bëgg a changer dëkk bi gars yi ñoom nekk ci terrain bi guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg di nga gis benn kër goo xam ne dana weer wi ñëw nañ fa juróomi yoon lu tëgg ba 4 heures du matin dem ñibbi te amuñ ci benn tiyaaba yéen nag wa tarjuna min allahi ma la yarjun yaakaar ngeen ci yàlla ñooñu luñ yaakaaru ba pare te kenn gisu leen liggéey bi dafa am lu mu laaj doomu nday yi mbokk yi laaj leen ñi ci jiitu woon lu ñu daj balaa yéen ñii ngeen ciy juddu wala ngeen ciy ñëw ixwaani la wujida haulaay rijal bu nu amoon góor ñooñu tey mabtaada al islaamu an tawjihi al xayaat wal xayaat bu nu amoon góor ñooñu waxuma ci Sénégal mais ci àddina bi kon l'islam du toll fi mu toll parce que ay góor ñoo ko sampoon ay góor ñoo ko jëlee màkk Médine yóbbu ko màkk jële ko màkk tas ko ci àddina bi ay góor ñoom Khalid ibn al-Walid ñoom Hamza Asadullah ñooñu ñoo tas islam bi ci àddina bi suñ amaatoon tey góor ñu mel noonu kenn waxatul wax ci xoolal alamul islam yi rek nit ñu bëri mais ay góor ñoo ci manqué buñ amoon ñooñu l'islam fii mu toll tey ci àddina bi di ko toll law wujida lil islaami li rija rijal lan najida man yaqifu fi tariqihi wa yaxkumu alayhi kon du ñu gis kuy baare suñu amoon tey góor ñooñu du ñu gis kuy baare l'islam du ñu gis kuy toog ci yoonam du ñu gis tey lu bon li ñu teg ci kaw diini ci nga xam ne jullit yëpp dañ leen a détruire dañ leen a yàq tëral leen ay programme yoo xam ne pour ñu génn ci yàlla rek moo leen di musal da ngeen defe ne làmb ji hasard la moo fi indi boppam ñaata la ñuy fay tey cachet bi gën a seer Sénégal lan la ah du cachet làmb fan la ñuy jëlee alal ji ci drogue drogue gis ngeen promoteur yi amul ku ci nekk ci kaso bi pourtant mënoon nañ faa jaar rek arrêté ko parce que leer na léegi mais déedéet parce que kii dafa feeñ rek am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw te dara taxul lu dul xam nañ ne ndaw yi islaam yi ñoom ñoo ci nekk kon nañ leen më sàngali nañ leen gëlëm loolu yi ba dootuñu dal seen diine ñi bëri néew na ci ku dul jullit bi néew na ci laa wax ku dul jullit te bu leen yaakaar ne bëri bi kese la déedéet dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw bëri bi mooy tas xërëm te xam ngeen ne lislaam diine la joo xam dafa ñëw pour jële xërëm ci kaw suuf xërëm ndax xërëm la fi fekk waaye samp xërëm lay la la la la làmb ji di njëkk a def wala tey xërëmkat yi ku nekk mu ngi promotion su combat yi am xërëmkat yi dañuy wax diw mooy daan diw mooy daan fi mu nekk ni ku wax dëgg soo waxee mu tolloo nekk dëgg rek suba fàqmaan yëpp daw rang sa kër te kii lu mu wax dëgg la gis ngeen ñaari yoon a ngi nii ñetti yoon a ngi nii mu naan diw mooy daan diw daan defee ñi bëgg liggéey fa lañ jëm jàng naa ba pare daa yëpp liggéey yu ma ma ngay ñëw fii mu wutal la liggéey mu xëlam la mu sang la jigéen ji nga xam ne toog na ay weer ay at amul jëkkër ñëw mu sang ko ki bëgg a tukki ñëw ñu sangu te li gën a garaaw ci xërëm yi mooy léegi ci armeel yi rek lañ koy def ñoom ñëpp ci armeel yi la ñuy yónni nit ñi barki démb am na benn théâtre xaw ma bu tudd xaw ma café lan ah démb laa amoon wala barki démb vendredi ñen ñoo ko seetaan fii fii sabilillah dafa am lu ma bëgg a laaj rek waxuma ko seetaan ngeen ko maire bi maire bi bi muy jox baxaayoo ko butéel bi lu mu ko wax demal ci armeel ya gis nga même théâtre yi dañuy orienté nit ñi ci armeel yi demal ba ci armeel bi ëpp nit ñu dee fi gën a lëndëm bàmmeel bi gën a lëndëm nga gas ba mu xóot ba nga egg ci bopp néew bi nga dugal butéel bi ba ci théâtre yi sax dañuy orienté nit ñi ci armeel yi yor naa benn seede kër ga benn waay boo xam ne ci Niger xaritam dafa dee ci ngoon mu bàyyi bu guddi mu ñëw gas bàmmeel bi ba mu xóot mu dugal boppam dugal ñaari loxoom dugal ndigg li waa ji daal li des ci kawam mooy tànk yi kese ñaari tànk yi bi mu duggee ndeke ci néew bi la am lu mu bëggoon dagg bàmmeel bi rës ci kawam mu dee bi suba jotee am ñëwoon am ay nit ñi ñëwoon doon suul si seen néew ñu fekk waa ji ci kaw bàmmeel bi mu écarté wu daal di dee ñu dem wax ko autorité yi dëkk ba ñëpp ñëw ñu ko waxee nit ñi ñëpp ñëw léegi ñu ne waa ji nañ ko sulli comme bàmmeel dafa màbb ci kawam nañ xëcc ci tànk yi mu génn bi ñu jàppee ci tànk yi xëcc ko bu génn ñu fekk loxo droite bi mu ngi yor paaka loxo gauche bi mu ngi yor sexe néew bi ndeke sexe néew bi la doon dàkk pour lan pour xërëm coow li commencé ci armeel yi bi ñu gisee loolu biir yi commencé gars yi xëcc ko ba pare di ko dóor ay yat te dafa dee di ko dóor ay brique jàpp ko di ko tëri génne ko ba ci buntu armée yi teg ko ci tali bi teg ko ay pono daal koy taal ndax lan ndax xërëm dégg ngeen jamono yële passé ñu ne mbër yi dañuy dem ci armée yi di sulli ay yaxu néew da ngeen defee mbër yi kese la ak politiciens yi fi nekk ni ñi ñu war a auditer dañuy dem ci xërëmkat yi ñu jox leen ay téere ne leen dem leen su ngeen demee ngeen gas ba jot bopp néew ngeen ubbi gémmiñ ngi jugal ci téere bi tëj ko noonu néew bi noppee noonu la ñuy noppee ci këyit yi kenn du leen woo yéen gis ngeen dégg ngeen fi benn waay bu ñuy def ci ay kaset ñi ne dafa doon xërëm ay nit ci liñ doon lekk ay yaxulan yuuru nit ak xawma yuuru xaj la ñu jël weer ba mu wow dégg ngeen ko ñu ne loolu la lekk loolu nit ñi moo tax nit ñi topp ko loolu lañ def ci ceeb yeeg ndax kafe yi nit ñi naan ko wala loolu dégg leen ko waaw waaw man kay mu ngi noonu du question bëre bi rek dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw mooy xërëm dañ ko tas parce que xërëm ak islam àndul nit mënul nekk jullit nekk xërëmkat mënul nekk kon doomu ndey mbokk yi lii nu bëgg du lu ndaw dafa laaj takku temm fexe dugg ci nit ñi ñoom ni ñu soxlaa ndaw yi góor ak jigéen yéen tamit kazalik mais toog nii rek conférence changé wul mbir mi de waxtaan yi changé wu ko changé wu ko ñëw rek nit ñi toog nii wax ko ku nekk daal di dégg rek ñu dem ñibbi toog abada loolu laa wax changé wu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng leen yoon wi mu jaar ba changé yonent bi bi ko yàlla di yónni ñaataat la am ah ñeent fukki at 40 ans bi muy génn àdduna ñaata at la am 63 ans li mu dund diine ñaata at la ah 23 ans mu changé golf bi 23 ans mu changé golf bi yëpp lépp nekk l'islam golf bi loolu ngay dégg ñu ne golf Arabie Saoudite Irak Iran Koweït Bahreïn Jordanie Syrie Yémen loolu ngay dégg ñu ne golf 23 ans la ko yonent bi changé 23 ans moom ak saxaaba yi kon ñun tamit suñu bëggee soppeeku googu du nii rek toog di wax am lu mu laaj jóg su fekkee politiciens yi damay faral di wax yenn saa yi may mbokk yi jaaykatu cigarette yi sax ñoo leen gën a sawar bu nekk ni Malbour am na ñu koy liggéeyal ñu koy daawal yenn saa yi ma dem ba Casamance ma gis ay oto Marlboro ay jigéen ñu sol ay casquette ay yére t-shirt Marlboro organiser benn podium Marlboro waaw nit ñi daan ku ñëw ñu jox la benn paquet. est-ce que loolu Casamance dong lañ koy jëmale yéen Dakar gi fi yenn saa yi ngeen di gis nañ bàyyi Marlboro nañ ñëw ci Jimbo ma ne Jimbo am na góor ak jigéen sax ñu koy daawaal pour mu jar alayhi salaam gisu leen ko yéen. kenn ci yéen toog fii mosul gis ñuy ñuy liggéeyal jimboo utal ko benn pëjum ñii di wo ñii di fecc ñii di way nga fecc ba pare ñu may la benn paanu jumbo wala benn siwu jumbo wala pondaalu jumbo gis ngeen ko wala gisu leen ko yéen yéen du ngeen dem marché xamalaa ñi yéen gis ngeen ko yéen nag ci yéen kan moo mos a jóg pour liggéeyal lislaam noonu fekkee yéen dañuy liggéeyal jimbo jimbo sax lañ gën a liggéeyal ak islam jimbo ci Sénégal jimbo lañ moo gën a siiw l'islam ndax jimbo moom am nay am nay jàmbaar yu koy liggéeyal jimbo ak Nescafé ah mboolem lekk yi ñuy jaay am nañu ay nit yoo xamante ne journée lañ leen di fay journée ñu yor oto defal leen ci podium luwel leen groupe ñu jaar ci mbedd yi di ko publicité di ko waxtaanal yéen nag parce que yéen mos ngeen luwe groupe teg ko ci oto dem benn dëkk ci dëkk yi nekk fa une semaine ñibbisiwaat daawa fa ñibbisiwaat parce que mos ngeen ko def Malick a ngi ni toog du ma weddi demoon nañ benn dëkk boo xamante ne dëkk ba kenn ñemewu faa noppi bu julli jotee sabar la ñuy tëgg sabar ndooyeen séeréer xoolal suñu dem foofu mooy sabab jàkka ya am noddukat suñ fa demul woon kon dem nañ ci dëkk boo xam ne jàkka ja chrétiens yi ñoo ci denc seen mbaam xuux gis ngeen ñun xamuñu mun xamoon liy xew ci biir Sénégal waxuma la biir Dakar mais ci ci biir kon dina xam ne ñun waratuñu toog waratuñu lekk waratuñu naan dem nañ dëkk boo xam ne ki fa nekkoon ilimaani jàkk bi mu deewee faatu chrétiens yi dañoo ñëw fexe ba doomam murtat comme papa ma fa defoon néeg bu ndaw boobu nekk jàkk ñu def ko église dégg ngeen loolu léegi nag loolu dañuy toog nii rek ñun di xoole ah wax naa leen sànq bu ñuy commencé man leen mbir mi dafa laaj taxawaay lii ñu bëgg mu soppeeku du lu ndaw waaw chaque jour boo bëggee dara yëngu li ngay yëngal yaa ko ëpp doole wala moo lay ëpp doole ah ah yow yaa ko ëpp doole nga doog ko mën a yëngal su la ëppee doole du du yëngu mais moo lay yëngal yow ixwaan yi la wujida lil islaami rijalan ما ابتعد عن موقف الصدارة لأنه في غيبة هؤلاء الرجال ترد المسلمون من ديارهم من أمون تاي أي غور يتكو أي نو يتكو غوخ بنك كون بنك أي نو الإسلام تكو فا غور جيجين دي لغاية دكبا دي لغاية كون با كون تي وقت نو نسانز دكبي من أمون تاي أي نو يتكو que l'islam du absenté ni tey ci terrain bi islam du absenté ndax islam absenté bi mu absenté ci gox yi ak dëkk yi loolu moo tax tey ñu dàq jullit ñi ci seen dëkk yi bal sax looloo tax kaso bi gën a bon ci àdduna bi tey jullit ñi lañ fa tëj tey nekk jullit kirib la lu tax ndax nax gi ñu nax doom yi l'islam yi dugal leen ci pecc daf ci alal ju dul jeex tey bu nit jógoon ne damay jàngi di ñaan visa kenn du la may mais boo jógee ut ay pot ut ay sindax yu góor ak yu jigéen solal leen yére yu gàtt góor ñi nga dabalaa leen jigéen ñi nga boo demee ambassade ne damay ñaan visa da ngeen am benn soirée bu ñuy tëgg ñu may la waaye boo gàddu woon licence nga dem duñ la may visa pour nga dem eggali sa ñaan lu sax parce que lee lañ bëgg mu tas bu leen yaakaar ne pecc wala woy wala làmb nit ñi dañ ko jël nii rek non dafa am ñu nekk ci ginnaaw ay mbooloo di leen jox ay millions pour ñu yàq ndaw jullit yi pour ñu yàq réewu islaam yi su ngeen xoolee adduna bi tey kase bi gën a ngand kase yi gën a rëy yépp ci fo la nekk footballeur bi gën a siiw Europe ñaata lañ koy fay ah 9 virgule 3 milliards euros wala jour bi gën a bi gën a bi gën a loolu est-ce que mos ngeen gis président bu ñu koy fay ci àdduna bi wala fo noonu football bëree cachet ñuy fay loolu noonu la woykat yi noonu la làmb ji foo dem partout foo lañ gën a favoriser parce que xam nañ fu ñu jëm dafa am yoon bu ñu rëdd foofu lañ bëgg a yóbbu nit ñi mooy dañuy dem ba yeewu ci àdduna bi bu fi borom xam-xam yeewoo ku am xam-xam bu mu fi yeewu léegi nag loolu pour lan la buñ ne nit ñi bàyyi leen jàng gis ngeen suñu njàng mi suñu école yi sax daanaka léegi lu ngeen léegi ñu ne étudiants yi sax dégguñu tubaab wala parce que njàng moo fa amatu gis ngeen école primaire yi moom daanaka jàng amatu fa mais du ñu xëy ne leen tab daanal leen école yi non day ñëw fexe benn classe 700 personnes toog fa benn nit di leen jàngal benn nit mën a jàngal 700 personnes waa ji du ci sonn bañ na ko ba dee def rangé nilaar rangé rangé du wax ak ñii ñii rek ñee lu ñu lu ñu def baax na fexe ba classe bi benn nit rek jàll fi benn nit lii ay programme la yoo xam ne dañ ko tëral pour détruire nu pour yàq àdduna bi ñun jullit yi buñ ko xamulee fi lañuy nekk di wax rek lii wax du ko dindi jëf ñu fexe ba former suñu bopp sànq am na ko doon wax ginnaaw bu ñu taxawee dañuy fexe jàng xam parce que islam dafa nekk ci ñaari danger xubatu aadaahi wa jëhlu abnaahi danger bi bu njëkk bi mooy noonam yi dañoo bëri doole ñaareelu danger bi mooy ñiy tuddawoo lislaam jullit yi xamuñ ci àdduna dara xamuñ ci diine dara àdduna bi ñuy xëccoo ak ñoom ñoo ñu raw amul benn dëkk jullit tey booy réew ñu ne day defar oto wala day defar kaas wala dañ fay defar portable wala dara ñun dañuy jënd rek fexewuñ ba jàng pour xam mbir yi niñ koy defaree lan moo tax tey dëkku lislaam yi dëkk bu leen neex ñu dóor parce que amuñu arme amuñu ngànnaay benn dëkk da ngay dégg wala ñaar ñu ne ci dëkku lislaam yi ñoo am bombe atomique yeneen yi kenn amul ku ñu bëgg a dóor dóor lu ñu bëgg a def def dëkk bu ñu dem imposé seeni mbir ñooñu nangu ñu jox leen suñu bañee ñu tam dëmu président ba dóor koy yeb wala ñu rey la ko su fekkee xamuñu lool nag ñun pour ñu génn ci bu leen yaakaar ne li ngeen di gis nii tey ci biir suñu dëkk bi xale yi li ñuy soloo nangam ak nangam yi xew télé bi programme wax si ndax bu jóg rek ñu ñu ñu ñu may la télé. télé yi ñaata télé moo am Sénégal ñaata télé la ban télé moo ci télé l'islam am na. waxuma télé biy teg oustaz buy waaraase de dama ne télé islam laa wax loolu laa wax waxuma télé buy teg waxtaanu islam télé buy teg waxtaanu islam ak télé islam ça fait deux waa ji mën na teg waxtaanu islam fekk gëmu ko gis naa directeur télé boo xam ne télé dafa dajale conférencier yi ne leen balaa maa dee ngeen nekk fi naan sallallahu alayhi wa sallam gënu fi kenn ah da ngeen ak gis ngeen man gënuma te directeur télé la ñi fa toog yëpp ne ku nekk sëgg ñu kenn ñeewul weddi ku toll ne Muhammad ñu koy xas ci kanamu ay jullit ñu toog te lii ma leen di wax ne directeur télé la gis naa directeur télé boo xam ne Màkka la doon bañ ñu teg ci téléem fajar Màkka woo directeur général ba mu ñëw naan ko mayow lu tax ngay teg Màkka fajar mais fii am nay jàkka suñu jàkka yi lu tax mënoo koo teg mën nay nii rek nga teg Màkka fajar suuf kon lan moo tax jullit yi mënuñu am télé islam danoo tuuti danoo amul kon dafa am yoo xam ne minimum suñ buggee changer foog ñu def mun noo toog rek changer ni ndox mi mënul rek wala ngaan di ñëw suñu kër yi ñu taxaw ci buntu kër yi yor ay peel rek di tibb suuf di teg wala di jël ay saaku di ci def suuf di fatt ndox mi ci buntu kër yi mënul mënuñoo continuer xam nga lu ñuy jural ñun ñëpp suñuy mbagg toog suñuy faar damm ndox mi dugg ci kër gi détruire kër gi ñi ñi dëkk gunaas xam nañ li may wax bu ndox mi di ñëw nga taxaw rek di baare di baare di baare da ngay jékki-jékki sonn ndox mi daal di jàll comme nu ñuy def dañuy dem fa ndox mi di génnee ñu fatt foofu gas bu mu xool ba jot tiwo bi jël ay buum takk tiwo ba mu ne koj ñu kole ko suulaat ko dem ñibbi ndox mi arrêté mais sans loolu duñ dem kon fexe ba changé jële làmb ci jële pecc mi jële musique bi ci dëkk bi lenn duñu ko mën rek lu dul ñu delloo nit ñi ci ma baaliwul islam kon mbokk yi ci gàttal loolu laa doon fàttali sama bopp dinañ ko fàttali su amee ay njuumte maa ngi koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu
ci suuf ngay tee
allo waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi vraiment rafetlu exposé bi nga xamante ne oustaz def na ko